réussir mais ñii nag moom ñii bandi salté yi ñoom Omar bi Sow yii bandi salté yi mbalit mii il faut ñu traquer leen mettre leen hors d'état de nuire c'est tout voilà kon mi ngi noonu malheureusement nag Macky ay conseils yu nul la amoon gis nga Tunkara Tunkara bu 2STV conseil am la gis ngeen ko nu mujjee prostituée prostituée association des prostituées de la République APR association P des prostituées R de la République kuñ jël prostitué ko Omar de la république la Tunkara bu 2STV gis nga tun euh, prostitué de la république nga defoon gis nga sawaay bu mu ñëwee fii dëkkoon fii Canada gii ma newoon la nekkoon Souleymane Jules Diop prostitué de la république lañ ko mujjee def di defendre le diable di défendre l'indéfendable di défendre ay kàcc ak fen gis nga <laughs> dañ leen di prostitué loo man moom du ma nekk fenn ñu may prostitué loo di fen di yóbbu la rey nit ba pare nag tamit défendre nga bëgg a doon l' avocat di jaabal naan rey ko non ay ku leen ne woon garde wuñ ko est ce que xale boobu ñu tegoon noonu newuñu woon di ko garde di ko di fen sa doom yi xam ni da ngay fen sa jabar xam ni da ngay fen say maam xam da ngay fen ñu dee sax xam ni da ngay fen loolu moom yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla muccal man kenn du fen naan ma dama défendre ko du ma la défendre te jour boobu dinañu àtte ma ak yow oh, xaw ma koy parce que nit yi dañ ñëw di atte lan la ma def maa bëgg a fen loo daa def nii mu def nii na ma demal feneen ma fen du ma ko defal du ma ko fen mukk dara dara gënalu ma waaw donc euh, voilà loolu lépp nag lañ ca def moom mooy ànd ak suñu leaders yi protéger leen wax leen dëgg di ànd ak ñoom di leen di wax bu ay buur lañ ay ay ay maanaam euh, boo demee tey ci Machiavel ci livre am bi presse boo ko liiree am na fu muy expliqué naan nee na buur buur quoi nee na buur dafa soxla ku koy conseiller mais bu mu doon ku ñëpp di conseiller parce que bu ko ñëpp di conseiller day mujjee ñàkk na day ko comme ku jóg rek conseiller ko boo demee ci Machiavel ci le prince day wax naan buur il faut mu am ku dëggu ak ku ku amal ay rapport u dëgg kese koo xam da koy wax dëgg te yàlla tax nee na kooku da koy dimbale mais nag warul ñàq fayda ba ñëpp di ko conseil man bu boobaa ñàkk fayda la ñàkk pour la ñàkk fayda dañ lay yàq ku ko conseil la donc buur day am vraiment ñoo xam moom xam na ni ñii langage de vérité lañ séq ak moom ragaluñ ko rusuñu ko dawuñu ko jox nañ ko cër nag mais bu dëgg desee dañ ko koy wax dem seen yoon buñ tëddee nalaw dara bu amee dañuy xam moom dañ ciy set wecc xam ni ah waxoon naa ko newoon naa ko lii newoon naa ko laa voilà combat bi nag ñi mu def conseil ñoom ñii moom xam naa leen ñu yàgg ci combat bi la Hannibal Djim ku yàgg ci combat bi la ñu ci bari xamuñu Hannibal Djim mais man xam naa Hannibal Djim Hannibal Djim xam na ma bu yàgg boobu Sonko amul Diomaye amul Hannibal Djim bii moom ak ñoom euh, euh, ñu ñu ñu newoon urgence panafricaine boobu ay frappe amul frappe ci yàggul Guy Marius Sagna la woon urgence panafricaine Hannibal Djim Euh, urgence panafricaine euh, Bentaleb Sow urgence panafricaine kii Sow waay euh, te te teñ mujj ko takk nii te te te doomu Sidy Lamine bi takku ko kii Sow Babel Sow Guy Marius Sagna ñooñu ñoo ne woon urgence panafricaine ay ñoom Kémi Seba ak ñoom Kémi Seba ñoom ñoo fa nekkoon ñoom ñoo doon organiser suñu concert yi ñu doon def di manifestation yi ñu doon def ñoom ñoo ko doon organiser ñun ñoo doon ñëw foofu Hannibal Djim yàgg na ma yéegal yàgg na ma yéegal ñuy yéeg jox ma micro et cetera et cetera ñu yor la ñu yor ñu ñu ñuy wax donc ñi ñu yàgg ci xeex bi lañ ñu yàgg ci xeex bi lañ après nag la ñuy ñoom bu kémi demee ñoom ñu créé ñoom seen frappe France dégage Guy Marius Sagna ñoo kii ñoom Hannibal ñoom et cetera ñu créé seen frappe France dégage ci la am ñeneen ñi ñëw mooy euh, ndaw siiwaay lu euh, mu tudd di ki ki ngeen di wax ne ndaw si am na ndaw si dañ fal ko fan yële passé ci la ñooñu yëpp ñëw après ci la ñooñu yëpp ñëw mais nekk ñu fi woon ci urgence panafricaine bi euh, nekk ñu fi woon ci la ñuy ñëw mooy xaw ma lan méngeen Aminata méng xaw ma nday méng euh, jàpp ma turam quoi parce que ñooñu après bu ma voyagé la la ñuy ñëw sama ginnaaw ñoom méng ki sant méng donc ak et cetera ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc ñii ma leen di wax nii ñu yàgg ci xeex bi lañ ñu maîtriser xeex bi ku ci mel ni Hannibal Jim ku ci mel ni euh, euh, Boy Bentaleb boo nga xam ne université la doon jógee bu wàccee daw ñëw xam nga ñu nekk ci combat bi ñu yàgg ci combat bi waaw ñu yàgg ci combat bi après nag ci ak ak Guy Marius Sagna ñooñu même kii lañ même niveau la après nag ci lañ créé waaw ok Fatima Meng waaw ñoo loolu bi la ñooñu c'est les derniers venus ñooñu ñooñu. Euh, xeex bi ñoom jii doon def ñoom Hannibal moom moo indi ñoom faatima ñoom ñoo ñoo leen indi ak ñoo ñoom euh, euh, ñoom Bentaleb ñoo indi ñoom Fatima yi buñ ñu créé euh, FRAPP voilà ak ñoom Karim ak ñoom Karim je me rappelle très bien voilà gii nekkoon vraiment nekkoon suñu booy mi nekkoon guerrier gii c'est un très grand guerrier voilà donc gars kontaan nañu ah. di leen bëggee di leen ndamoo Euh, non Ousmane Diagne bokk ci woon Ousmane Diagne bokk ci woon Ousmane Diagne jamono jooju xam naa mi ngi jàng nekk loon ci affaire ci affaire combat yi nii quoi Ousmane Diagne après ñoom ci affaire yu 2021 lañ ñëw man li ma lay wax ni 2012 la 2011 2012 waaw 2011 2012. loolu ñun boobu ñu ngi ci combat bi dégg li ma lay wax ni mais ñoom Ousmane Diagne 2021 la mooy affaire Sonko Jomaay bi ci la ñoom Ousmane Diagne ñëwee ñeneen ak ñeneen mais ñi ma lay wax nii ñii dañoo yàgg ci combat bi. ñoo yàgg trop ci ko combat mooy ay Hannibal man ma koy xam ci deux 2012 2013 2014 ci laa xam ay Hannibal ci laa xam euh, euh, booy kii booy Bentaleb ci laa xam créé nañ fi lu bëri nag après waaw voilà ñoom Karim et cetera et cetera euh, te bopp bopp sax lañ doon defee conférence de presse yi bopp voilà bopp lañ doon defee conférence de presse yi saalu bopp boobu lañ doon defee conférence de presse yeeg yooyu donc ay nit yu yàgg ci combat yu xam combat du ñoom Omar Sow du Omar Sow bu ñu jëlee fële muy jaay fëgg jaay sàcc alalu jàmbur yi ñëw ñu def ko conseil spécial bokkul bokkuñu de ñii ay combattant lañ yu xam xeex bi yu xam xeex bi yu yàgg ci xeex bi yu yàgg ci affaire panafricanisme Hannibal Djim ku yàgg ci panafricanisme la Bentaleb Sow ku yàgg ci panafricanisme la Babel Sow ku yàgg ci panafricanisme la Guy Marius Sagna ku yàgg ci panafricanisme la <laughs> waaw donc ñii dañoo yàgg ñii ñii avant Sonko c'est avant Sonko Diomaye avant Sonko Diomaye la donc euh, bokk ñoog benn jaaykatu fëgg mbëkk bu ñu dem jëlee Gabon nga mu sàcc ñëw <laughs> xam nga ñëw ñu dugal ko fa muy juutu di nuy waa ji comme yaa ku gis yàlla donc voilà waaw ah, bi jamonoy bopp la bopp rue <laughs> 2 exactement foofu lañ doon defee suñu suñu conférence de presse yi ndeysaan euh, euh, néeg bu tàngoon ngay <laughs> néeg bu tàngoon waaye Eh, lu yàgg rek dëgg la ndeysaan ca ñaari ñaari rajo yi ñoo ñëw ak benn <laughs> benn télé loo gëm rek mu gëm loola quoi <laughs> yàlla baax na quoi boobu ñu ngi ne euh, ndeysaan soo ko mus na ñëw fekk ñu ñuy wax ñuy xeex kii moom it mu ñëw fa quoi ah, kii la woon waaw vers de vers de Falémé bi lañ doon vers de Falémé bi ñu ñëw rek Sonko Sonko ñëw foofu foofu laa njëkk nga gisee Sonko rek ndeysaan ko ñëw ci suñu kii bi quoi ànd ak benn deux garde corps ñëw ci suñu conférence bi <laughs> ñëw toog waxtaan jël parole <laughs> gis nga yàlla luy def on avait ay benn rajo moo ñu doon ñëw ak benn télé billaa ñu toog nii voilà quoi ndeysaan te gis nga tey que ñu toogaloon noonu ñu ñëwoon di wax ci feer bi tey moo moo nekk euh, moo nekk euh, tey moom moo leader leader jeunesse bi tu donc euh, du neen daal du neen ngeen gis ay Sonko ay Hannibal ay ñoom Bentaleb du neen de du neen de ay ñoom Guy Marius du neen de Guy mooy njëkk a nekk directeur de cabinet bu Sonko en 2019 <laughs> kon Sonko yàgg nañu suivre yàgg nañu suivre ci xel en 2019 bu mu ñëwee parti bi Guy Marius moo newoon directeur de directeur de campagne bi moo newoon directeur de campagne man man lañ waxoon man la Diomaye waxoon pour ma def sound bi lu ma leen wax nag moom mille 2017 la ba deux mille dix 2019 2017 man mii la Diomaye waxoon ma def sound bi pour campagne 2019 mu jël Guy ñu jël Guy Marius Sagna def ko directeur de campagne man maa waroon def sound bi moo tax campagne boobu amul sans amul sans sans musicien bu bu bu leen accompagner man maa ko waroon def te man jomaay moo ma ko moo ma ko waxoon moo ne ma foog nga def Mollah bindoon naa ci sax commencé woon naa bind je me je me commencé woon naa cee bind quoi après continué wu ma euh, yàgg na daal ñu ne gars yi yàgg nañ trop ci combat bi on se connaît moo tax man je l'ai fait confiance xam naa Hannibal xam naa Hannibal caractère am xam naa dëggoom euh, xam naa yaatuwaayam xam naa intelligence am macha allah quoi. waaw waaw voilà non c'est non législative 2017 waaw législative laa bëggoon législative 2017 du 2019 législative 2017 exactement législative 2017 la woon exact 2000 parce que loolu 2017 législative yi la législative 2017 yi boobu lañ ma proposé pour ma def saanu euh, Pastef non pourtant bindoon naa ko bindoon naa ko ba après jamono jooju euh, boo ko bindee DJMF jëlaat ko teg euh, am la l'homme qu'il faut Sonko am na kii Sonko c'est l'homme qu'il nous faut euh, fàtte naa ko de donc 2017 la nag fàtte naa ko mais mun naa koo xool parce que publier woon naa ko boo demee ci sama publication Facebook 2017 texte bi bindoon naa ko fa bindoon naa ko voilà ba après DJMF jëloon ko partagé ko gars yi di kii boobu moom boobu mi ngi foofu boo demee boo wàccee wàcc ba 2017 mi ngi effacé wu ma ko mu ngi si sama mi ngi si sama Facebook texte boobu noonu ba ma commencé woon donc voilà donc vraiment euh, pour wax leen rek jomaay ñi mu fal xam na leen xam na leen yàgg naa ñoom yàgg na leen suivre yàgg na leen dégg ci réew mi yàgg na leen euh, euh, maanaam yàgg na leen côtoyer voilà te ñu ñoo nekkoon ak moom ci campagne bi aussi xam na leen bu baax a baax a baax ay nit la yoo xam ni ñu ngi fi woon depuis bu Pastef créé woo bañ nekk ci législative 2017 li ma leen di wax loolu la donc boobu kenn xamu leen woon maanaam kon jaajëf gars yi maa ngi leen di bëggee kontaan ci yéen ndamoo tiitaroo voilà jaajëf jaajëf Allah dana sa sallallahu sama gars yi kontaan na